waa si jàngat bu ndaw rek si góor ak elmarik góor li mu wax dëgg la niñ ko daan defee noonu lañ ko waroon na defee. mooy. bu tabaski gi dee jub si kiñ dénk transport woo leen di leen woo di waxtaan ak ñoom di leen woo di waxtaan ak ñoom ba tabaski gi jàll. ñu ni lii li fi am metti na kat pourtant waxtaanoon nañ si de ñu waxtaanaat continuer wuti màggal noonu la daan demee. dañ daan waxtaan rek. kii nag daa ñëw waxtaan benn yoon daal di appliqué te du noonu ñee dañ daan waxtaan rek di dem waxtaan Assane mais benn yoon la waxtaan ah daa waxtaan waxtaan da ñii dañ daan ñëw di waxtaan di waxtaan ba ba ñuy démissionné ngi waxtaan maam ba ba ñuy jeexal Mansour Faye bañ ko falee da doon waxtaan ba niñ ko follee nii hmm. waaw must appliqué hmm. da daan waxtaan rek maanaam ñoom waxtaan rek waa waxtaan rek kii nag daa ñëw waxtaan daal di appliqué loolu moo leen naqari. waaw mais attends boo ko waxee noonu day mel daa ñëw waxtaan rek attaqué mais waxtaan na ni leen maa ngi leen di dégg waaw du loolu laa la wax dafa waxtaan appliqué ñii kii nag danaan waxtaan di dem dañ naan waxtaan di dem ba niñ ko follee. te waaw kon nag daa war a ñëw aw fa man Mansour Faye awoon. di waxtaan waxtaan ne tabaski gii di ñëw ñu waxtaan. ba noonu nga ko bëggee ñu waxtaan man daal ni ni ni ñu ko bëggee ñoom laa wax. <laughs> déedéet yow ni ko réew mi bëggee moo tax ma laaj. man man waaye ñoom xam nga réew mi cinquante cinquante. yow nan la war ni mu war a doxee man daal loolu laay wax si kàddu mi moom am na droit wax loolu. benn léegi El beneen bi it El Malick. sëfoor hmm. euh, yi dafa am sëfoor yoo xamante ni seeni oto frein yi baaxutoon am yoo xam ne pneu yi baaxutoon. Hmm. am na yoo xamante ni oto ya paanoon nañ. tabaski hmm. gi jub si am ñoo xam dañoo lem lebi banque jënd ay pneu. am ñoo xamante ni dañoo dem defaraat seen oto ba mu ñoŋ di waajal tabaski gi pour ñuy daas seen paaka ba mu ñoŋ mën a ñaat client yi. mu ñëw xañ leen loolu yi waaw ndax xamante ni tey jii ñii liñ daw ko si new duñ ko fayee dañuy toog nga xam duñ si gagné dara daanaka seen i xar yi lañ waroon a am si tabaskeeg yooyu yëpp amuñu ko mhm. kon xañ na leen loolu moo leen ko xañ waaw wala ñoo xañ seen bopp moom moo leen ko xañ pourtant nee na leen kaay leen toog ñu waxtaan ngeen dawal waaw léegi waxtaan waxtaan wi dafa gaaw ah, ok waxtaan wi dafa gaaw kon bi mu ñëwee El dafa waroon a waxtaan ak ñoom ni leen lim nangul ñii ñi nga xam ne oto yii mu fa yóbbu hmm. yokk nañ paas bi yokk nañ ko waaw yokk mooy la yokk nañ ko xam nga damaa toogoon fi ma ne la bu dee Touba 2000 la ñuy fayeeku hmm? Hmm. dem Touba nga fayee ko biis jaadu nga nga fay 5000 pour ñu yóbbu la Touba wala nga fay 4000 pour ñu yóbbu la ba booba nga naa ma noon yokk moo jaadu man la yokk mun munta ñàkk ndax boo demee boo ñëwaat doo indi client pourtant noonu lañ defal biis yi biis yi fi Elmalick yóbbu yokk nañ paas bi Assane yaa ngi saboote de. saboote wu ma de dëgg rek laay wax. luñ paas ñi ma ñi fa dugg xam nañ ni dëgg laay wax. ñaata lañ paas. ñaata lañ paas. bu dee Franc fayeeku 2000 4000 lañ fayeeku bu dee Franc bu daan fayeeku 5000 10000 euh, lañ wax. maam li ma waxoon noonu la. mais foofu ay 10000 ak ay 12000 lañ daan fay. waaw xam naa ko dañ ko daan maam dama ni la liñ ko doon yokk moo jaaduwut waaye yokk mënut a ñàkk si événement. ndax retour bi day am. retour nag bu fekkee deux 2000 nga daan fay buñ la fayee koo 4000 jaadu na waaye li jaaduwutoon nga daan fay 2000 ñu ñëw fayeeku le 13000 wala 12000 loolu moo jaaduwutoon waaye bu ñu waxtaanoon ñu ne ko léegi yéen fay leen aller ak retour bi clients yi duñ ko bañ ndax clients yi dañoo dañoo dañoo jaaxle dem léegi lañ bëggoon waaye nag euh, comme que noonu la ko defee wax dëgg yàlla euh, kii sëfoor yi am na sëfoor yoo xamante ni am nañ lu leen metti trop am na ñoo xamante ni bañ fayee seeni bor dañoo jeexal te dañ si daan jóge am na ñoo xam ne bu jóge dañuy dañuy yor xaalis bu bari te ren bëri ab xaalis waaw kon nag dafa fexe ñii clients yi seenu dundin ñoŋ ñu nekk si jàmm dem si jàmm dikk si jàmm problème amut xëccoowuñu xeexuñu seeni bagage réerut accident amut ñoom ñëpp ñu nekk si ah, jàmm accident daa waroon a am déedéet ñii daan dem nii ñii <laughs> yow ni nga koy waxee yow contraire lii daa waroon a am déedéet xaalis daa waroon a bari accident am non non xam nga ñoom dañ daan xëlëf-xëlëf yi di baagante waaw xëlëf-xëlëf jooju di baagante hmm. moo waralaan xaalis bi daan bari nit ñi sëfër yi daan sonn accident yi di waaye da gis sax ay sëriñ ay sëriñ génn ci ma kii gi tabaski naan ren accident dina am bërëb sàngam waxuñu ko ren de non duñ ko wax ñooñu kay yeboo ñu noppi rek fi mu toll nii réew mi dafa doon réew moo xam ne fi mu ne nii moom ku yebaleeg xaar lu ñëw nga xam ne lii ñëw na nga wax ci te la ñëwagul nga banoona d'accord mm.